maa ngi mm-hmm. yow yow xanaa da ngaa dof. yow xanaa da ngaa dof. yow xanaa seetoo ñu ngi fi nekkandool. waaye ñoom kenn ku ne yaa ngi toog. ki soo ñëwee fii wóor na sëñ Fall billahi wallahi. da nga ngarab lool di nga wayadi. démb rek am na démb rek am na ko ngom woo ngom di ko ko wax. waaw bis bu Dakar la wootee naan ñu ngi woo bañ naan ko ne ne nii nana dañ koy nax bis bu ñëwee dañ lay pièce bis bo ñëwee fi dañ lay kep doto jouer nga waya di dem jaay mbuss nga dem jaayi mbuus numéro yi nga déggante gis nga bu boba bo ñëwee ma tud damay genn ci yow aduna ak alakhirah na nga ko xam nag sëñ taal ni numéro yi yow yow da ngaa ñàkk fayda numéro yi nga dégganteel pour lan la yow yow ñang fa nek noonu kenn ku ne da ngaa supporté si numéro yëpp nga supporter lan la aja mi ngay bo di wo yeneen numéro ah, so wooyee aja par mu jox la numéro mu jox ko nit ñi ko nga xam ne ni yàqal la bëgg xam nga da ngaa dof yow da ngaa mel ni ku yow lan la yow ah hmm. néew ñu la fii léegi nga biak Adja léegi nga nga dindi numéro Adja dindi ko dindi ko ah ñëpp wax nañ la ko ñëpp ko wax démb am na ko woote di ko ngom bi ci guddi naan bànjam ñu ngi koy pièce di ko waaye su ñëwee fit na way te kenn dootu ko jël xanaa boobaa nga dem jaayi mbuus loo fi defati Sénégal gi loo fi defati kenn dootu la wóor kenn dootu la nga fecc na ba dee te fecc lu wéy ah, da ngaa bolo boole nga Adja mii boolekal Adja waaw Adja loo numéro boo boo ko jox rek. mu joxe ko suñ numéro kii suñ saali lool la wax suñ saali xool na ko démb wala am ah, ah. am naa yow ñaari fan duggal la néeg nee na nee na sa nim nee na sa numéro suñ saali ak numéro Moustapha kese nga war a am. kese waaye yow soo si pot ne numéro ba ca. bàyyi ma wax ak bàyyi si numéro yi yow xaw ma yow lan moo la dal. xaaral ma yow yang ngi tax sa waajur nga noonu di joy purlan, ah, sa papa nga ne di joy pour lan yow ya, nga war sa papa ni son nga war koo dimbali yow ya, rëcc nga war koo dimbali ah bala maa dee nga mu numéro boo sens rek jox ko Adja rek Adja di la nggak rek kenn ko nu mu jox la sa numéro yow da ngaa fayda da ah lu tax ba nga sens numéro nga jox Adja sa numéro bu bees pour lan pour lan pour lan ñëppoon ko wax pour lan bis boo ñëwee baru ba wóor na suñu fal di nga wayadi di nga xam ne lépp la lan moo la dal ñëwal nga soo ñëwee dootoo ko defati kon di nga fecc ba say tànk dagg kuy tukkati fële lay wàcc ndax soo ñëwee dañ naan booy workat la ñoo ñi nga nekkal ñi nga dawandool xaaral leen di gisul da ngaa gis kenn dégg kenn dégg sax kenn déggu leen téléphone ñoo ngi gis sa téléphone bi ñoo kese la ñuy dégg soo ñëwee jël sa numéro di ko jox Adja di wootanteeg moom ku ne mu tasaare ku woo jot la di lay menacé dañuy fen dañuy fen dañ lay pièce ba nga ñëw soo pièce ba nga ñëw sax sidda lay daaq ba ko rek sidda lay daaq su dindil ci numéro ah. kii sëñ Saliou ñaari fan mi ngi lay dugal néeg xalwa ñaari fan tey la doo ko génn tey sa xëy naa faja sax toggal la laa nga mel ni ko manqué ah nga mel ni ko manqué nga mënta dindi numéro nit ñi ngir yàlla ak yonent bi wala soo wowul Adja ngay dee yow ni nga ñàkkee fayda xam nga Sénégal ak fii di benn ñëwal Sénégal a ngi nii Sénégal léegi fi mbooyu maa ngi fi ñëwal de wëndee la ko taxawal ñëwal dañ na mën a dimbal sa papa papa ngi ne di jooy sa sa bàjj da nga ne di jooy pour lan nga teg ko fan ndax lépp ajaa ñëwal nga seet dootoo ko defati dañ lay pièce dañuy fen dañ lay pièce ni lañ wooye ngom bi ci ko ko wax nee nañ ko na dindi numéro yëpp numéro ñaari magam yi kese numéro zaal nga war a jël ak numéro tafaa kese bul jël ci beneen numéro kese bul woo kenn dindi lépp numéro yëpp ngay dindi ba am li nga bëgg ah ñaari fan nekk nga am li nga bëgg ñëw wala fecc mi nga bëgg a vidéo ak stat yëpp nga arrêté ko ah fecc mi nga xam ñëpp nga doon ñaan yàlla pour nga tukki ah sa papa nga xanaa yërëmoo ko ñëwal soo billahi soo ñëwee dootoo ko defati. waaw dama am contrat bu ñëwee da nga yàq. da nga am contrat amoo benn contrat dañuy fen dañ lay nax dañ lay nax woote nañ wax ko nga bi ci guddi dañ lay nax fan yéen mi ngi la bëggoo wax la ko dañ lay nax dañ lay peese ba nga ñëw ñu sànn ca xaj ko defee say moroom nag ñibbi si fii yor seen i oto di la romb yow la déggee sax yow sax xanaa loolu ñemewoo ko waaw. maa yow yow xanaa da ngaa dof. yow xanaa da dof. yow xanaa seetoo ñu ngi fi nekkandool. waaye yow. ñoom kenn ku ne yaa ngi toog. ki nga soo ñëwee fii wóor na sëñ Fall billahi wallahi. da nga di nga wayadi. démb rek am na ko ngom woo ngom di ko ko wax. waaw bis bu Dakar la wootee naan ñu ngi woo bañ naan ko ne ne nii nana dañ koy nax dañ lay pièce bis bu ñëwee dañ lay pièce bis bo ñëwee fi dañ lay kep doto jouer nga waya di dem jaay mbuss nga dem jaayi mbuus numéro yi nga déggante gis nga bu boba bo ñëwee mo tud damay genn ci yow àdduna ak alakhirah na nga ko xam nag sëñ taal ni mo ray yow yow da fay da ni mo ray nga deggantel pour lan la yow yow ñang fa nek na kenn ku ne da nga supporter ci numéro yépp nga supporter lan la aja ni ngay bo di woo yeneen numéro ah, so wo aja par mu jox la numéro mu jox ko nit ñi ko nga xam ne ni yàqal rek la bëgg xam nga da ngaa dof yow da ngaa mel ni ku xawma lan la yow ah hmm. néew ñu la fii léegi nga biak Adja léegi nga nga dindi numéro Adja dindi ko dindi ko ah ñëpp wax nañ la ko ñëpp ko wax démb am na ko woote di ko ngom bi ci guddi naan bànjam ñu ngi koy pièce di ko waaye su ñëwee fit na waaye te kenn dootu ko jël xanaa boobaa nga dem jaayi mbuus loo fi defati Sénégal gi loo fi kenn dootu la wóor kenn dootu la yóbbu nga fecc na ba dee te fecc lu wéy bolo ngaa mënta boole nga Adja mii boolekal Adja waaw Adja loo numéro boo boo ko jox rek. mu joxe ko suñ numéro kii suñ saali lool la wax suñ saali xool na ko démb yoo la am ah, ah. am naa yow ñaari fan duggal la néeg nee na nee na sa nim nee na sa numéro suñ saali ak numéro Moustapha kese nga war a am. kese waaye yow soo si pot ne numéro ba ca. bàyyi ma ma wax ak bàyyi si numéro yi yow xam nga yow lan moo la dal. xaaral ma ma yow yaa ngi tax sa waajur ngi non di joy sa papa nga ne di joy pour lan yo nga war sa papa ni son nga war ko dimbali yo rëcc nga war ko dimbali ah bala ma de nga mu waro bo sans rek jox ko Adja rek Adja di la rek kenn ko nu mu jox la sa numéro yo nga ñak fayda torop da ngaa ba Adja mi ah lu tax ba nga sens numéro nga jox Adja sa numéro bes pour lan pour lan pour lan ñepp a ko wax pour lan bis bo ñëwee fi ba wuur na suñu fal di nga wayadi di nga xam lepp deug la yo xaw lan mo la dal ñëwal nga xol soo ñëwee dootoo ko defati wala di nga fecc ba say tànk dagg kuy tukkati fële lay wàcc ndax soo ñëwee dañ naan booy workat la ñoo ñi nga nekkal ñi nga dawandool xaaral leen di gisul da ngaa gis kenn dégg kenn dégg ñoom sax kenn déggu leen téléphone ñoo ngi gis sa téléphone bi ñoo kese la ñuy dégg soo ñëwee jël sa numéro di ko jox Adja di wootanteeg moom ku ne mu tasaare ku woo jot la di lay menacé dañuy fen dañuy fen dañ lay pièce ba nga ñëw soo pièce sax sidda lay daal ba ko rek da lay daal su dindil ci numéro ah. kii sëñ Saliou ñaari fan mi ngi lay dugal ne xalwa ñaari fan tey la doo ko génn tey sax xëy naa faja sax toggal la laa nga mel ni ko manqué ah nga mel ni ko manqué dangaa mënta dindi numéro nit ñi ngir yàlla ak yonent bi wala soo wowul Adja ngay dee yow ni nga ñàkkee fayda xam nga Sénégal ak fii di benn Sénégal a ngi nii Sénégal léegi fi mbooyu maa ngi fi ñëwal ñëw de wëndee ko taxawal ñëwal dañ na mën a dimbal sa papa papa ngi ne di jooy sa bàjj da nga ne di jooy pour lan nga teg ko fan ndax lépp ajaa ñëwal nga seet dootoo ko defati dañ lay pièce dañuy fen dañ lay pièce ni lañ wooye ngom bi ci di ko ko wax nee nañ ko na dindi numéro yëpp numéro ñaari magam yi kese numéro zaal nga war a jël ak numéro tafaa kese bul jël ci beneen numéro kese bul woo kenn dindi lépp numéro yëpp ngay dindi ba am li nga bëgg ah ñaari fan nekk nga am li nga bëgg ñëw wala yow fecc mi nga bëgg ak vidéo ak stat yëpp nga arrêté ko ah fecc mi nga xam fecc ñëpp nga doon ñaan yàlla pour nga tukki ah sa papa nga xanaa yërëmoo ko ñëwal soo billahi soo ñëwee dootoo ko defati. waaw dama am contrat bu ñëwee da nga yàq. da nga am contrat amoo benn contrat dañuy fen dañ lay nax dañ lay nax woote nañ wax ko nga bi ci guddi dañ lay nax fan yéen mi ngi la bëggoo wax la ko dañ lay nax dañ lay peese ba nga ñëw ñu sànn ca xaj ko defee say moroom nag ñibbi si fii yor seen i oto la romb yow suñu la déggee sax yow sax xanaa loolu ñemewoo ko waaw. maa yow yow xanaa da ngaa dof. yow xanaa da ngaa dof. yow xanaa seetoo ñu ngi fi nekkandool. waaye ñoom kenn ku ne yaa ngi toog. ji nga soo ñëwee fii wóor nga sëñ Fall billahi wallahi. da nga ngarab lool di nga wayadi. démb rek am na ko ngom woo ngom di ko ko wax. waaw bis bu Dakar la woote naan ñu ngi woo bañ naan ko ne ne nii nana dañ koy nax bis bu ñëwee dañ lay pièce bis bo ñëwee fi dañ lay kep doto jouer nga wayadi dem jaay mbuss nga dem jaayi mbuus numéro ray nga déggante gis nga bu boba bo ñëwee ma tudd damay genn ci yow àdduna ak alakhirah na nga ko xam nag tal ni ni mo ray yow yow da fay da ni mo ray nga deggantel pour lan la yow yow ñang fa nekk na kenn ku ne da nga supporter ci numéro yépp nga supporter lan la Adja ni ngay bo di wo yeneen numéro ah, so wo aja par mu jox la numéro mu jox ko nit ñi koo nga xam ne ni yàqal rek la bëgg xam nga da ngaa dof yow da ngaa mel ni ku xawma lan la yow ah néew hmm. ñu la fii léegi nga biak Adja léegi nga nga dindi numéro Adja dindi ko dindi ko ah ñëpp wax nañ la ko ñëpp ko wax démb am na ko woote di ko ngom bi ci guddi naan bànjam ñu ngi koy pièce di ko waaye su ñëwee fit na waaye te kenn dootu ko jël xanaa boobaa nga dem jaayi mbuus loo fi defati Sénégal gi loo fi defati kenn dootu lo wóolu kenn dootu la yóbbu fenn nga fecc nag ba dee te fecc lu wéy dangaa bolo boole nga Adja mii boolekal Adja waaw Adja loo numéro boo boo ko jox rek. mu joxe ko suñ numéro kii suñ saali lool la wax suñ saali xool na ko démb yoo am ah, am naa yow ñaari fan duggal la nekk. nee na nee na sa nim nee na sa numéro suñ saali ak numéro Moustapha kese nga war a am. kese waaye yow soo si ne numéro ba ca. ba ma ma wax ak bàyyi si numéro yi. yow xam nga yow lan moo la dal. ah ma dal yow yaa ngi tax sa bàjjen ngi noonu di jooy